combat yu bëree bëri macha allah bi ci jiitu di Balla Gaye 2 ak Boy Niang keroog ñu gis face to face bi Balla Gaye li mu daan def moom la Boy Niang def lan nga ñu mën a wax ci loolu. Balla Gaye ñu ngi koy ñaanal daal lu gën a lu gën a gaaw daal ñu ngi koy ñaanal ndam yàlla ko yàlla may daal. gis nga ni Boy Niang li muy wax gëm na ko wala gëm. non c'est normal Balla Gaye moo toll noonu waaw si ak Balla Gaye il faut nga wane sa bopp wax mooy loolu pour sa kër Balla Gaye santuñ ko ay wax ay jëf lu ci des ay jëf la war def moom li mu war a wane lépp na ko wax indiwu ko fii daal. ñu gis waa Thiaroye ak Khadim Ndiaye nee nañu 10 combats Reug Reug daan Sa Thiès. waaw Reug Reug tamit adversaire potentiel bu mu ngi koy sooxaan si carrière am Sa si combat yi mu génn ak yi mu gagné Reug Reug amul adversaire yooyu mais lamb ku xew ak ki mujjee daan ak ki daan ay combat loolu la Sénégalais du Cissé. mais Sa Thiès bu ñu ko tegee si norme moo mën fukki rek ku seen seetaan rek seetaan Sa ñu lay xaar sa sortie yow doomu Grand Yoff fan nga toog. sant yàlla instant yii Bouba moo ñu fi indi bu koy ñaar yàlla may ko def man sama combat woo garaawul quoi bi mooy loolu du si bëgg a sori quoi waaw. ñaabu ndaw même chose ñu ngi koy ñaar yàlla may ko def suñu rakk ndam li mérité na ko sonn na si dañ na see ñu si ginnaawam. lépp lu ñu lamb ji lu ko lamb ji jaral rek jaral lu ndam Mathia tamit am na combat yàlla may ko ndam bu baax yàlla ko may ndam parce que tamit nit ku baax la ñaabu ndax Maguette Seck tamit am na combat Maguette Seck yàlla ko yàlla may ndam Balla Gaye Marley ñëpp yàlla leen yàlla may ndam incha allah. kontaan nañu ba. Ah, ok mbokk yi ñu ki nga xamante ni moom mooy. Boy ñaa 2 di Maguette Seck di doomi Géejawaay moom itamit ñu gis poulain di préparé samedi pour bëre waaye laata loolu dafa am combat yi ngeen xamante ne ngeen ko dëgmal muy ay doomi Géejawaay ku ci mel ni Balla Gaye 2 Sa Thiès ak ki nga xamante ne moom mooy Marley su ñuy commencé rek mooy kii ci jiitu di Balla Gaye Boy Niang 2 Boy Niang 2 waaw man tamit am naa combat dafa am combat yow itamit dinañ ci ñëw ñu keroog gis nañu signature Balla Gaye 2 ak ki nga xamante ne moom mooy Boy Niang Balla Gaye li mu ban gis-gis nga ci am. waaw mais loolu. loolu c'est normal képp ku xam Boy Niang xam ne Boy Niang mbëru signature la mais su lamb ja li muy wax ak li muy def ça fait waa waaw Boy Niang moom day signé da koy xumbal ba mu xumb mais lamb ja moom xamal daw bi indi jéem a yot loolu lay jéem a teg quoi mais mooy loolu. waaw daan nañu gis Boy Niang tamit ñuy wax ni ay mbëru géejawaay daf leen a sonal daf leen a sonal cette fois muy ñëwaat ak mbëru géejawaay. billaay wallaay wa taala man combat man tiitu wallaay wa taala bokkuñu. non booy ñaa li mi li mu wax. nii que bu Balla Gaye bëree mu mu mu daan ko bu xeexee mu duma ko. te ndax dafa gis si xool ci parce bu ñu seetloo dernière sortie Balla Gaye ñaari combat yu mujj def Balla dañu ko daan gis bu arbitre sifflé mu daan dem Balla bi léeg-léeg dañu koy gis muy xaar Balla dafa mënatul la mu mënoon wala. waaw booy ñaa moom wax la ko nit ñi xamee quoi wax la ko wax la ko làmb xamee mais booy ñaa man en man mbër may wax rek te yàlla tax booy gañe gisuma ko quoi waaw bi mu yéegee ci luur yi gisaguma koo xamante ni xam lu ma wax boo ñaa affronté na la te billaay wa taala su bëreet Balla Gaye ba pare lay xam ni Balla Gaye du ñeneen du ñooñu noonu waaw. ñu gis keneen Reug Reug ak Sa Thiès Reug Reug moom itamit dañuy jàpp ne dafa amee wax ji amee wax ji loolu lan nga ñuy wax. waaw c'est normal Reug Reug amee wax ji parce que Reug Reug moo gën a moo taxaw na ci position boo xamante ni fi mu tooy nii ensemble moom wax rek la yellool. mais nag Sa Thiès moom tardé na ci làmb tardé boo xamante ni moom Reug Reug waru ko sax téye quoi bu dee bu dee la ñuy wax. li Xaadim Ndiaye wax dix combat Reug Reug mu day daan Sa Thiès. non loolu waxi dof la rek Xaadim Ndiaye loolu mu wax noonu amul Sa Thiès ñu dàq bëre ci làmb ji billaahi wallaahi wa taalaahi Sa Thiès bu muy nekk gone di bëre ba léegi ñun ñooy nekk Sa Thiès mbër yi dàq bëre ci làmb ci la bokk loolu laa bëgg moom mu xam ko billaahi wallaahi wa taalaahi waaw. sa combat fu mu toll. man ak wës jàmbaar taxaw na. combat bu mbëjee tafaat si ngeen di bëri. waaw am nga combat bu rëy. waaw na wës dama koy bàyyi mu ngi féetoo a wax Sa Sa Thiès daan ko te dafa toog interview mu ne. mu ne doomu mu ne kii nu mu tuddati wës jàmbaar daf may daan làmb ji man su ma leeree ni isambulu ma su ma daanee wës jàmbaar moom nangu na bëreeg man billaay wallaay wës jàmbaar man ak moom du làmb damaa bëgg moom mu xam ne wës jàmbaar nit ki mën nga ko wutal gàllaaj mën nga ko wutal lépp mais xel mënoo ko wutal xelam wës jàmbaar xelam tranquillul te bu ñu bëree ba pare lay xam ne xelam tranquillul man dama amul xel xel mu la daan non non defet ay defet la tegale boppam baaxatul dafa nëb su ma ñëwee dama koy corriger su ma ñëwee dama koy duma daan ko ci kàttanu yàlla ginnaaw lan sëriñ wala lan non mbooloo garaawul mbooloo bëriwul mbër yow ak mbër mi yow lay bëre si biir damaa bëgg mu pare may ma sens comme ni ma mayee woon sens laa koy ñaan quoi mu def ko. mbokk yi ñu ngi taxaw ki nga xamante ne moom mooy Eumeu di doomi Géejawaay waaye mbër ñu gis ngeen am ay combat waa Géejawaay combat yu tegaloo tegaloo. bi ci jiitu Balla Gaye ak Boy Niang keroog gis nañu seen face yi nga xamante ni yëkkati na ko ci kaw Balla Gaye ana anam bi ñu daan ñu gisee Boy Niang keroog loolu lan nga ñu si wax. waaw dañuy mus bu baax di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di nuyu sama mbokk géwél yëpp ah di nuyu waa Diourbel yëpp yëpp a ak waa Mbour Boy Niang day àbb fit li muy def noonu nekkul ci moom moomu ko Balla Gaye rek c'est normal mu toog comportement rakam lay bëre c'est normal muy ni grandi quoi mais Boy Niang li muy def nekkul ci moom parce que lu naturel dafa am solo quoi mais li muy def naturel na na wax rek na wax rek ba suur lamb ja day wax rek xam nga moom day wax li gars yi wax naan man damay damay jëf tuuti damay euh, wax tuuti jëf lu bëri mais moom day wax lu bëri moom li muy ñor newul ci moom te dàq si quoi rek rek Sa Thiès dañ ñaan Sa Thiès yàlla may ko ndam bu baax Sa Thiès amul ku mu daan ci kaw suuf parce que bëri kat am na këm-këm bi ndaanaan la Khadim dafa ne dix combat rek rek moom daan Sa Thiès loolu daa far rek bu ko noonu parce ni ku far moom nu ko neex lay waxee même solo mooy Sa Thiès dañuy ñaanal ndam ku mu daan ci kaw suuf ku la joxee cër. gars yi ñu ngi wax bu Fass waaw lu ko yàggam ci ma ak ñoom ku ma xam-xam ni lamb du taxawee ci man mais il est a del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi